di rafetlu fait que bi ñu ñëwee tekk nañ fi le maire gouverneur ñoom ñëpp ñu ñëw euh, syndicats yi ñëw nañu société civile parents d'élèves yi euh, li ñu doon ñaan yàlla daal loolu moo am parce que li ñu gis fii si Thiès si école privée ba fii ak école publique bi conditions yi donc mun naa wax ni que respecté nañu foo mun te ñëw am nga fa barrière ah dañu test savon également gis ngeen matériel bi fi également bi ñëwee ci école bi aussi la même chose donc li wax né que examen bi si lu ñu jot jot ci biir Sénégal si 16 académies pour le moment mun nañu wax né commencement bi donc baxna lool nak nag mëna wax parce que commencement la parce que légui lañ ñu ko commencé euh di wax né rek organisation bi nag yombul parce que lo xamné moy mooy téeméeri junni ak euh, juróom benn juróom-ñett fukk junni candidat hein, loolu yombul junni ak euh, pratiquement témèr yo xamné centre junni ak ñaari témèr jury organisé ko yombul lolou nak war nañu remercier di féliciter di encourager acteurs yi acteurs yo xamné ñom ñoo doon organiser examen bi treize épreuves 13 épreuves communes donc mu ngi maa ngi féliciter en tout cas le directeur des examens et concours pour le moment au niveau organisation fi ñu toll di wax ne rek examen bi pour le moment ñu ngi sant yalla commencé nañ ko en tout cas si bisimilah ñu ngi ñaan yàlla ñu àggale ko si alhamdulilah rabbil alamin xam nga jàngale jàngalekat koo xam ne moom enseignant la ak parent d'élève bi ak élèves yi su doon seen sago résultat yu baax chaque année loolu mooy suñu objectif xam nga sooy évaluer élève day mel yaa ngi évaluer sa bopp enseignant boo gis la bëgg am résultat bu baax directeur boo gis loolu la bëgg donc ñu ngi sant yàlla parce que mun naa wax ne bi ñu demee ba tëj école yi le 14 mars ba jour bu ñu reprendre ñii di def classe d'examen nous taxaw mooy li ñuy wax continuité pédagogique gis ngeen radio, yi gis ngeen télé yi canal éducation amul woon ci la commencé am ressources ressource di fonctionner enseignants yi defal ay classe virtuelle loolu moo tax bi ñu recommencé encore ñu am deux mois donc deux mois yoo xam ne classe yi mun nañu wax ay élèves kese ñoo fa nekk donc enseignants yi donc jëf si li ñu mun yi encore ñëw ñu am condition yu baax bariwuñu donc loolu moo tax que vingt élèves par classe man gëm naa ne loolu mooy participer si résultat yi baax waaye su doon sama sago sax mu gën fa sori parce que xam nga am na yenn réew yoo xam ne mun nañu am sax quatre-vingt-quinze pour cent de réussite mais ñun ñu ngi woon si ay trente trente deux trente cinq pour cent ren gëm naa ne en tout cas xamaguma résultat yi au niveau national ni ma ko xamee daal ni ma ko gisee mun na am suñu résultat yi ren mooy gën a baax ñi daaw yi